ñëpp première dina am na incha allah waaw. waaw day yomb ndax vraiment xale la. xale boo amee leen lu muy xaar bi yow mu teg ñeema. waaw loolu la gis loolu laa gis. waaw. samay morom. bëri naa dix sama dix huit morom laa bëree mënuma jeexal ñëpp gis nga li nga may sànni bu bëree maa ngi dix huit combats. li ñuy wax roi sax. ñi wax roi ñi wax roi sax amuñu amuñu 18 combats bu ñu ëppalee combat ay ñaari combat yu ëppalee ñett waaw war a yi si kaw ku bëre 18 combat kay waaw bëgg ci yow. maa ngi am jàmm maa ngi am jàmm bu baax a baax. waaw ba nga léegi noonu borom na sa jàmm yàgg. fi la jàmm dàqee. te fii la jàmm gënee. maa ngi nii de kuy laaxatu ko. këram waaw xar waaw waaw ndam la incha allah de première ndam la incha allah waaw waaw day yomb na vraiment xale la xale boo amee leen lu muy xaar bi yow mu teg ñama waaw samay morom bëri naa dix sama dix huit morom laa bëree mënuma jeexal ñëpp gis nga li nga may sànni bu maa ngi dix huit combats ñi wax roi sax ñi ñuy wax roi ñi ñuy wax roi sax amuñu amuñu dix huit mën a bëri gars yi bëre dix huit ba ci yow xaar gaynde gi combat am si dem daan ñibbi incha allah. ah daan jokkee dana yomb. non bu Thiès incha allah si kattanu yàlla wax waaw parce que ñun ay ndaw yu ànd lañ. waaw di xaajandoo di dóorandoo. moo tax lu wut lañ saa su ne borom bi daf ñu may defal. waaw si ta Papa bu ba kii général bu Fass. dama koo laaj diggante si ta Papa mu ne Papa dàq bëre. waaw bu liggéey mu ëpp doole. te buñ bëree mooy dàq. waaw général général Fass. incha allah ci combat bi la nga xam ne ñun dañoo mën a bëri. Uh-huh. waaw te lu ñu mais diggante Lamsar ak Fass dafa war a tàng tamit xam nga en même temps tam duñ ay noonu xam nga ay adversaire benn lañ lamb mooy gagné rek te incha allah dañ fay ay ndam te loolu lañ gëm te borom bi da koy def muy man di Siteu keneen bu koy waaj a Mbacké waaw dem daan ñibbisi yóbbu ma la 18 ma daan ñibbisi xaar gaynde gi combat si dem daan ñibbisi incha allah waaw mais daan jokkee dana yomb non du Thiès incha allah si kattanu yàlla wax koy liggéey bu waaw parce ay ndaw yu ànd lañ waaw di xaajandoo di dóorandoo moo lu ñu ut lañ ne borom bi daf ñu may defal dàq bëre bu ah. ñu liggéey moo ëpp doole hmm. te buñ bëree mooy daan hmm. ah. Ah. di wane affaire xeex affaire gaynde mais incha allah ci combat bi la nga xam ne ñun dañoo mën a bëri. Ah. waaw te lu ñu. mais diggante Lamsar ak Fass ren. waaw daa mel am naa tàng de. non dafa war a tàng tamit xam nga en même temps tam duñ ay noonu xam nga ay adversaire lañ. ak Siteu Papa Sow naan Papa Sow mën ci lépp day nax boppam Siteu taalibe Bàmba xale bu ndaw la ñun liñ koy sant leen la kese la entraînement lekk naan tëdd amuñu si xel ñaar ñu ne Papa Sow barki maam seerama bilaay wallaay taala jaaxaluñu sax jokkeel ay jokkeel duñu téye dañuy dem suñu yoon barki maam seerama duñu téye dana nekk si yoonu làmb di dem maanaam lépp maama la lépp maama teewuma mbër bee ko waral booy loolu en tant que bisam suñu bis la ça me dit quoi pël pël dina ma sama yaakaar ok ok ci wàllu di seet sama yi ñu fi gis ñii ñëpp di seen taal yi ñoom seen bis sama bis la bu rafet rek lañ ñu ji moo waral loolu mooy continuer tarkindaay jàmm rek lañ am amuñu leneen lu dul jàmm leneen lu wax la jàmm lañ wax. parce que ci la ñuy dox ci la ñuy xëy ci leen doon seen xarit nag jaral na leen seen nasu ba tey bu ma seetloo tam benn taxaw seetlu indi lam sànq ne gisuma Tidiane Faye gisuma Fëgala gisuma Nees ak ñeneen ak ñeneen tête de file yooyu fu ñu nekk lu tax ñëwul waaw ñii dem nañ voyage ñenn ñoo voyagé Fëgala Fëgala dem na voyage Siteu dem na voyage Nees dem na voyage yaa ngi dégg mais ñoom ñëpp képp ku ci ñëw dama jàpp ne sa fenn xam nga ab ngaa sa ñëw sax ñëpp ñëw ma tourné gis am Ndiaye wala Coly Faye wala Balla Gaye suñu damay jàpp ñëpp ñëw ñu. amul amul lu may xàjjalee ñëpp kenn lu waral tax xam nga ñun ñëpp su may xarit lañ. président am lu leen téye moo tax ñëw mais bisu làmb ji seentu leen ko. ñëppay ñëw ñëppay ñëw incha allah. maam maam maam Fallou dañoo gis soo combat ak Diop bi ngeen di jàkkaarloo si ñaari dañoo gis ne dafa jël combat bi. bàyyi na ko yow pour yow nga diriger combat ndax moom dafa jël lépp pour yéen loolu lan nga ko xalaatee. waaw ah, non Jokal amul lu may wéer amul lu may lu may wéer yaa ngi may dégg amul lu may wéer man du ma xale magum jëmm laa yaa ngi dégg ba ma dalee bëre du tey bëri naa combat bu nekk. ndax say mag te defe naa ndam la fa amee ak defe. bis bu ñu jëflantee ba noonu fu mu dégg lamsaar dina tax ay nopp. moom Jokal lu leer laa lay wax. da ngeen bokk gox bi. ñoo bokk lépp. waaye bis ba benn ndam mooy am duñ ko bokk. waaw waaye jëloon nañu jëloon. combat bu ñu la maanaam bu ñu la xoolee xool ko ñun ñaar bu ngeen taxawee jaaga sa sampu jaaga rax. arbitre moo ko ñu booy. pour mu daal moo ko saaf. arbitre moo ko ñu booy. arbitre moo ko ñu booy. arbitre moo ko ñu booy. nee nga ko tarkindaa mu leen Dardaña. waaw mooy borom épée bu ndaw boobu. waaw mais jaasi du mu romb Dardaña moom épée la yor. épée du mu du mu jaasi du mu nga yaakaar garaaw. non non épée du def garaaw. jokkal li ma koy wax bariwul liñ wax yëpp wax nañ di des mooy bu dee décembre wax yëpp bu ñëwee na dëggal boppam combat bi du yàgg dëgg la boobu parce que su ma mënee combat bi yàgg. li nga wax ne la parce que borom Touba laa wax. suuna ay tànkam laa wax. combat bi du yàgg. donc bu ñu nee léegi su ñu ñëwee si maanaam euh, loolu nga wax mu ne dafa sa dënk nga koy bañ a gañe ko ren ngay ubbil tarkindaa yi parce que yaakaar naa yaay njëkk bëri grand si zone bi loolu nekk pression si yow. non nekk sant ñu bu baax woote ñu wuyu si la yomb ñu nag waaw war nañ ma tey fu mu toll si amul lenn wéeru ci suñu après seet loolu affaire bi yàqu na fa premier décembre lañ ko war a bëgg yàlla ci yàlla yóbbu jàmm ngeen waroon ko bëree daan ba yàqu ngeen war a bëriwaat le premier décembre maanaam bu ñuy sa côté entraînement diggante bi mu yàqoo ak tey maa ngi dafay yokk dara wala dafa wàññi dara non man amul lu may wàññi amul lu may yokk man entraînement suma métier li wër te wër mooy adversaire bi mooy bëreel jokkee te bu bis baax dinaa ko wan ne dama liggéey mais liggéeyu moom bi loolu moom lañ def. liggéeyu moom dangay bëreel moom. damay bëreel moom jokkee dama ko mën a waxee respecté naa ko trop mais bu bis baax dina xam ne man maa gën a soxla foofu foofu. yaa gën a soxla saa fi maa gën a xale. yaa ngi dem moom dem na ñëwaat. mais man mu bàyyi man ma dem. mu bàyyi mooy ñetteelu yoon defe naa ak mag defe naa ndam na fa defe. bis bu ñu jëflantee ba nopp. waaw mu dégg Lamsaar dina taf moom Jokal. lu leer naa lay wax. da ngeen bokk gox bii. ñoo bokk lépp. waaye bis ba benn ndam mooy am duñ ko bokk. maa koy jël ñu ngi jël ci. combat bu ñu la maanaam bu ñu la xoolee xool ko ñun ñaar bu a def lépp lu mën di def daan jël bu leer dem ñibbi si. lépp maama la. yal na ko yàlla may ndam yal na ko saa borom may ndam. loolu ñoom loolu la ñu war a mën a parce que général laaj mais Siteu li ñuy xaar si moom ay Papa Sow ak Siteu nga suul sama ndey li ñuy xaar ci moom du ah. na ko yàlla defal jàmm xool bu wér ba ñëw bu ñëwee dinañ xam beneen Siteu. looy di sant ñëpp di gërëm ñëpp. di wax kontaan naa. ñu woon ak waa jàmm gën si Tamba ñëpp ñëpp waa Gétt gi. waaw maam Diarra waaw maam Diarra waaw maam jaara maam jaara lépp si lañ lépp si combat bi lañ bokk dañ cee war a mën a jàpp te yàlla waaw maam jaara waa sam-sam ñoom ñëpp si combat bi lañ bokk waa guy daara e mbër waa guy daara mbëree eh, waa guy daara waa guy daara waa guy daara waa guy daara xam nga. waa buy daara waa buy daara waa ñu ñëpp. buy daara waa caare asir waa caare géej waa waa Pikine. waa géej lambaay lambaay waa buy daara. yaa ngi may dégg amul lu mu may man du xale magum jëmm yaa ngi dégg ba ma dalee bëre du tey bëre naa combat bu nekk. combat ak jot te fekk mu dox ko may am ma wax loo xam nga mënu ma def loolu ma bëggul def te sama conscience tranquille amoon ci mooy bëri tey la gën a waalo gën a aay tey la waalo gën a aay xooloo lu muy def ak lu mu def lépp lu muy def loolu yëfu li ma mooy li ma a def te jàmm bu nekk nag seen gaañaan maa ngi ñaan yàlla suñu borom yàlla moom may ndam ci kawam. ci côté mobilisation bi foo ci toll. loolu moom amuñ luñ ci tiit amuñ luñ ci tiit lépp dañ koy teg ci loxo suñu borom mais isaat bi fa gis man. luñ fa gis yow. parce que moom tey def lépp lu mën di def daan jënd bu leer dem ñu gis. lépp moomoo la. yal na ko yàlla may ndam yal na ko saa borom may ndam. loolu ñoom loolu la ñu war a mën problème. parce que général da ngay xaar da ngay xaar. mais Siteu li ñuy xaar ci moom ay Papa Sow. Siteu mu suul sama ndey li ñuy xaar ci moom ay Papa Sow. yal na ko yàlla defal jàmm xool bu wér ba mu ñëw bu ñëwee dinañ xam beneen Siteu. looy tàggoo. di sant ñëpp di gërëm ñëpp. di wax kontaan naa di woon ak waa jàmm gën si tam waaw ñëpp ñëpp waa gétt gi waa maam jaara waa maam jaara waa maam jaara lépp